xamante ne rek métti na loolu nekk tiis si suñu réewum Sénégal mu ñeel nag li nga xamante ne mooy woto yi daw si kaw tali bi ginnaaw nag ba benn camion paane fële nga xamante ne moom mooy si autoroute bu toll fële si Hann Mariste de euh, si heure bu toll cinq heures dix si fajar maanaam moom nag camion boobu dafa daal di taxaw foofu noonu andi li nga xamante ne moom mooy embouteillage bu bëree bëree lu tax nag camion bu paan boobu indi boobu lay jëya li nga xamante ne moom mooy wane ne rek oto yi dañoo paan ñu daal di leen di teg rek euh, si. wetu uh, oto yi ngir kuy ñëw si ginnaaw gis ko rek muy signal wala nga gis panneau boobu muy panneau de danger comme niñ koy waxee nga xam ne ni fii oto dafay pan nga moytu ginnaaw nag ba ngelaw gi ndax fajar gi dafa xawoon a ngelaw ngelaw gi daal di uh, uh, fël li nga xamante ne moom mooy panneau boobu nag chauffeur bi bàyyiwu si xel si la rek ay benn woto daal di rek accélérer jubali si li nga xamante ne moom mooy camion boobu ba tax benn douanier nga xamante ne turam initialité à deela euh, ñàq ci bakkanam ak benn xaritam bi nga xamante ne mu ngi wuyoo ci turu initial bi di AN mu doon mbir moo xamante ne lu metti la ci kaw ki nga xamante ne rek moom mooy njabootu douanier bi ak xaritam waaye rek ginnaaw ba ñu interroger ki nga xamante ne moom chauffeur ba nga xamante ni moom moo moomoon camion boobu waroon a teg di euh, euh, balise euh, de danger bi moom nag daal luaral nay expliqué wu lu waral li mel am ndax du te ko woon rek bu ñu si li nga xamante information yu rek Seneweb mu ngi xamal ni chauffeur boobu di wuy suturu BSS mon nek euh, li nga section des accidents et des préventions routières de Dakar dal loxo ba pare rek daal di rek ubbi benn enquête judiciaire ngir xool bu baax wala seetu bu baax li nga xamante ni moom moo demee si euh, accident boobulee mbokk yi nag li moo nekk lu leen indi loon di jaale bu baax njabootu douanier boobu ak xaritam di massaw tamit euh, chauffeur bi nga xamante ni teg nañu ko loxo di leen jox rendez vous très prochainement waaye rek way leen di abonné di partager si li nga xamante ni mooy public sn jërë ngeen jëf